baax a baax fu waaye nekk rek si réew mi ak si bitim réew mu mel ni Makan tey ñi ngi ngénteel Serigne Mor waaye image bi nag làmb kese ko man làmb kese moo ko man parce que yaakaar naa ne képp ku xam Bambo xam saa Touba wax dëgg yàlla Bambo nekk xaritam nekk lépp ñu jëflante ci lu bëree bëri kon tey image yi la làmb soxla image yi la réew mi soxla dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi ñu jublu ci liggéey waaw Modou Anta ñu ngi lay ziar di ziar makan bu baax a baax gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di ziar di leen joxaat seen wàccuwaay di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké Bassirou suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. di ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp di ñaan ci réew mi jàmm ñu màggal ci jàmm ñëwaat ci jàmm ak salaam ci barki seexul Khadim yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. di ziar itam sëñ Mor mi nga xam ne moo waral suñu jotaay fii nii muy nit ku baax di taalibi Cheikh di ku am yëg-yëg ci doomu aadama ku ne gis na barki dem moo njaay biñ ma tuddee drapeau daa bàyyi yitteem yëpp ñëw ngir sama jëmm kon tey moom bu xewlee yàlla xam na ne yow xam nga sax ne démb laa waroon dem Touba mais mënuma fi bàyyi bisam bi dama toog xaar ko ngir yëg-yëgam moom gi nga xam ne ak cofeel gi nga xam ne yàlla boole nañu ko ñu bokk métier mi teg ci comme li may faral di wax rek comme que tuxkat yi sax ñu ngi mayante mégo kon ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci ëtt bi nga xamante ni yàlla suñu borom moo ko def ci ñun dañoo war a booloo bokk ndey bokk bàyyi ñu ngi lay ziar bu baax a baax macha allah am na solo yaakaar naa ne daa ñëw sax dangaa ñëw fay si boor bi comme ni mu la ko defaloon parce que bi ñu la tuddee drapeau yaakaar naa ne si ñi njëkk sa kër si la bokk seen relation fan la commencé. sëñ Mor wax dëgg yàlla dafa doon nit ku baax parce que xamante woon sax xamante wuñu woon sax mais man bi may def sama interview ci sama bis bi dama tudd turam. woo ko sëñ Fallou Mara mi itam noonu mosutoon ñëw ci làmb keroog la mos a ñëw ci làmb sëñ Mor bi mu déggee ma tudd turam mu laajte sama numéro daal di may woo téléphone. yow la laaj sama numéro yaakaar naa daal di may woo téléphone ne ma dégg naa nga ma ci bis bi dinaa ñëw te nam ko waxee woon dafa fonk kàddoom moo fa jiitu sëñ Mor yow xam nga dara moo jiitu sama kër. yenn fa ba ngoon jot ànd ak man gunge ma dem stade jël xaalisam bu bëri def ko ci bis ba kon kooku tey bu xewlee yoon la ñu nitam ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw ngir jëmmam. di ko ñaanal jàmm di ñaanal yàlla euh, gan gi nga xam ne moo gane àdduna yàlla na yàlla na yàlla dund ba découragé ci barki Cheikhul Khadim yàlla na dund ba dund sàppi ko dem bay jël baayam bii di sëñ Mor di ko yóbbu muy siyaare ji yonent yàlla Muhammad yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal di siyaar itam sama mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp mbëri moom bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di nuyu itam sëñ fàllu maaraam yi nga xamante ne muy nit ku baax ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko jox wàccuwaayam borom daaru mu doon nit ku baax Bambo la solution di sama rakk di sama xarit di sama lépp comme ni ñu ko gars di waxee rek. Euh, nit ki damay ngay bokk ak moom day ak bàyyi sax te du tee léeg-léeg ngeen am yoo xamante mooy mais loolu yàqu dara seen diggante parce que dañ koy comprendre rek xale la comme ni mu ko waxee tey ñun ñii di waxee yow dañuy tooñ dañuy juum. di jégalu ñu ñu jégal kon moom bu tooñee jégalu dañ koy jégal te yàlla tax te jàppewuñ ko sax tooñ parce sama rakk la moo ma sañ a wax yenn yi waaw man loolu laa ko jàppee rek ndax sa rakk moom sañ na la wax lu ne lu ko neex tey buñ seexutoon yenn yi du ma wax yenn yi mais dafa am fuñ jaar lu bari maag moom dund ko moo tax mu am sañ-sañu wax ci man am sañ-sañu itam taxawaat daal sama mag la na ma jégal jégal naa ko ci xol bu sedd guy ndax da ngaa ko rek moo fa nekk te man wax dëgg yàlla moom xam a baax laa seq moom teraanga laa seq ak moom ngor laa seq ak moom jàppee ko comme sama bopp yéene ko itam teg ci kon dama koy ñaanal yàlla rek li nga xam ne moom la sumb ak yoon wi nga xam ne moom la nekk yàlla defal ko ci lu kawe ba lépp lu mu bëgg am ci àdduna rek mu am ko ci lu ci nit di am rek yàlla may ko ko ci barki Serigne Saliou. macha allah yaakaar naa ne am na solo lan nga ci wax Bambo la solution. waaw di lay nuyu di lay santaat bu baax baax di nuyu sëñ Mor mi nga xam ne tey moo waral euh, teewaay bi di santaat saa Touba ak sëñ Fallou suñ Fallou Mara ak borom daaru di leen di bu baax a baax a baax waaw di wax tamit lii rek mooy àdduna parce que tey boo nekkee kilifa des fois bu ñax làmmiñ sax dañuy réeroo mais ba ñu toogaatee xalaataat xam nañu fu ñu tegoon sunu tànk du foofu mais dañu ñëw wàcce waat suñu bopp jéggalu mu jéggal ñu parce que mooy lu may wax chaque fois rek saa sama mag la sama xarit la sama kilifa la te parce que dañu jaar fu bari bu may woon tam lu bari tey tey su ma demee tey ba sama tur yegg beneen niveau def na ci jéego moom tamit waaw ndax am na lu ma jàppale si lu bari daal. am na solo sa diggante ak Serigne Mor yaakaar naa ne tamit diggante la boo xamante bi nii macha allah ba tax tey nga teew ci eh, li nga xam ne mooy xewam bi. waaw sëñ Mor kooku mbigeel moo dox suñu diggante daal mbégeel moo doon suñu diggante parce que yàlla moo ñu boole moom muy taal bi Serigne Babacar si man muy taal bi Serigne Saliou wax dëgg yàlla ñuy ànd daal lu rafet des fois mu woo ma nee ma nii ngay def nii a tegal fees tànk kon kooku yéene na la des fois man ma am ay mbër sax ñëw sëñ Mor am gérer mbër bi des fois moo tax waxi noppi comme noonu. macha allah kon kontaan maa ngi lay ziaraat bu wér-wér Modou Anta di la jox sa wàccuwaay baax a di ziar kilifa yi toog si jotaay bi yëpp yëpp di ñaan suñu borom defal ñu gudd fan ak wér ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul. tey Serigne Mor xewle sa nawle yaakaar naa sa nawle yi ku ci teew mu woo la mu ñàkk la woo yaa fay njëkk a dem ci yar bi ak ci teggin yi lan nga sekk moom tey ba teew fi. waaw sëñ Mor tey ku baax Modou Anta di ku am yitte ci doomu aadama ñu bokk métier mu ñuy def mi wàllum ñaan ci yàlla mbirum ñu nangul ko li muy def tamit kon bu xewlee yëkkati téléphone am woo ñu yëgal ñu ko mënuñu def lenn dul ñëw teew fi kon ñu ngi koy ñaanal tout tànk bi ñu tuddee suñ Babacar si suñu boroom def ko muy magum lislaam mu wuyoo turam te bépp barke boo xam ne mu ngi ci turandoom rek suñu borom jox ko. Mhm. macha allah yan kàddu nga koy dénk. kàddu yi ma koy dénk mooy euh, mu gën góor góor bu baax a baax ndax mbéccum sëriñ nekk na loo xam ne nii lim laaj ñu ne gis nañu ko ci moom. muy lekk lu lew ak set ak sell te loolu boo ko defee rek da ngay am xijaaba day def loo ñaan rek suñu borom da koy def loolu gis nañ ko ci moom te mu ngi def preuve tamit wax dëgg fa yàlla bi ñu xamante yàggul mais ku ma jàpp la ku ma yëg la te it ku am yëg-yëg ci mbokk taalibe la ma ñuy ziar Sa Touba Bambo di ziar borom euh, El Hadj di ziar ñëpp képp ku fi teew rek ñu ngi lay nuyu baax di la ziar ak mbër yëpp tamit waaw. macha allah fi may jeexalee yow mu mel ni ak réeroo amoon na ci diggante Bambo ak Sa Touba yaakaar naa ne yow mii ci ñi yëkkati seen téléphone ba dox ko ci suuf ba mu amaat ci jàmm yaakaar naa ne ci nga bokk ñu la ciy félicité bu baax a baax tamit. waaw euh, Saatuba ak Bambo ñoom yàlla leen boole Saatuba di magam Bambo tamit di rakkam ñu ànd ànd bu yàgg xëy na ànd boo gis du ñàkk ñu am benn ñàkk déggoo tuuti maga rakk yi nekk ci kër dangay gis. tey xam dañu am ak ñàkk déggoo bu nekk seen biir benn cat bu ci amoon la jubboo la waat nañ leen ñu àndaat doon si jàmm ndax bi ma déggee mbir mi rek dama woo Bamba waxtaan ak moom moom tamit waxtaan ak Sa Touba xam ne ñoom ñaan dañoo réeroo woon rek mais ay ay ay wóolëre lañu yàgg lañ ndax ginnaaw yàlla moom bu yegsee fii Sa Touba jàpp na ci ay mbiram bu baax a baax kon ñu ngi ñaan suñu borom jubboole leen seen ànd gën a yàgg gën a sax ndax loolu lañ bëgg moo ànd ñun méccam sëriñ bi ñun bu ñu àndoo booloo amul luñ mënta def barke Seexul Xadim Sénégal ñoo teg tànk ci ñaan yàlla ci wàllum asaraar wàllum nooraani yu xam-xam bu leer amul kuñ ci sut demal réew bu la neex kon ñun sëriñ Sénégal bu ñu àndoo rek amul lépp loo xam ne dañ koy xaajoo te duñ ko dagg barke Seexul Xadim kon nañu ànd doon benn rek waaw yaatal xol yi rek waaw di ñaan màggal gi ñu fekkee ko ak jàmm baag ci ak jàmm. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ñaanal jàmm ak tawfeex. tey nga teew ci xew euh, Serigne seen seen diggante lan la. waaw euh, kóllëre rek man moom ñaare li may jàppee nit ki mooy boo oyofee rek dama lay ñeme te gis nañ ne bin xamante nag yàgg nañ man moom nag du du si làmb rek lan xamante nawetaan ndax dañ daa bokk sax équipe yu ni ñaanal mais loolu lan xamante mu nekk nit ku baax euh, moo tax ñu ñëw si bisam di ñaanal xale bi suñu borom def ko magum lislaam si barke Seexul Xaadim en tout daal nit ku baax la tey boo gisee nit ñi nin fi dajaloon ñi nga xam ne rek li leen yëkkat tamit baax rek la ndax euh, instant yi gis nga ñi ngi waajal màggal gi te nit ñi màggal gi fi mu nekk lan gën a tal sax si lum mu mën di doon tey ñi dagg yi te yëpp ñëw kon ak baaxam ak oyofam ak yéen nit ñëpp jàmm moo tax ñi ñëw kon tey ak ku mu mën di doon rek si lépp looy mën di yëngu rek nekkal nit ñi pour ñu nekk benn nga yéene leen jàmm ndax tey nit ki boo ko ne jàppee ne da nga koy xañ jàmm rek gëmal ne yow loolu nga koy yéene mën na këppwaat sa kaw kon nan maase nekk benn yéenante jàmm suñ xol yi daal ñu def ko muy benn man de loolu laay digal képp koo xam ne si man la nekk te man noonu laay doxee man du ma gisee ne sama nit nga sax ma gis ne tey bis bi bi may ñëw arène nationale ma gis ne yow mii beneen mbër nga àndal wala yansim dama lay ñaanal pour nga am ndam mais nag bu ñu waree jàmmaarloo nag dañu jàmmaarloo waaye nag bu jeexee rek jeex na te nee naa saa ne nit bu dee da koy jàpp rek te yàlla tax bu ko jàppee ngir àdduna bi wala làmb jàpp rek ngir jàmm yàlla ak yonent bi man noonu lay àndeek nit maa ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfeex di sàkku si ngërëm ngeen ñaanal ma ko tamit baax na jërë ngeen jëf